kilifa diine yi ci réew mi mbir mi bi mu amee daaw jéeg man demuma seeti kenn demuma ci benn kilifa diine ne ko wax ci demuma ci benn kilifa aada ne ko wax ci xam ngeen lu tax ñaar rek moo tax benn orma gi ma jox kilifa diine yi ba yenn yi duma bëgg dugal leen ci dama nan nañu def liñuy def rek lu yalla def ñu xamni li la ñaaral wax na len ko legi dama gëm ni dama gëm yalla d'abord waye gëm ni askan wi tax ñuy sonu askan wo du tok di ñu sétane ñuy motax bi may wax askan wi la waxal mu amon nak ay kilifa diina yo xamne tel nañ ci addu wax ci wax ju am solo parce que jamono jooju bu ñu bàyyi woon xale yi continuer li ñuy def ñaari fan lañu ciy teg ñaar moo mun am soit nguur gi dina daanu wala li fiy rot ci bakkan dina bëri trop bu dee réew mi bu amee fu mu toll ñii nga xam ne ñoom la ñu jiital wóolu leen gëm leen ñuy kilifa diine faw rek ñu wax ci parce que ñun ñëpp seen njaboot lañu kon dañ leen di teel a yéegal balaa ñuy egg foofu.